Euh, L'association Les Amis de Derkley, à travers ma personne, euh, a voulu rendre, mais également au nom du président Amsata Ndiaye, absent pour des raisons professionnelles, retenu à Saint-Louis, a voulu rendre un vibrant hommage à Adja Seynoboutou, d'abord, dénommé Matou, Ma. Vous savez, Ma en français est le diminutif de maman. Ce qu'elle a été pour nous tous ici à Derkley. on l'a affectueusement et communément appelé Ma. Elle nous le rendait bien puisqu'en retour, elle nous appelait mon fils, s'il s'agissait d'un garçon. Et s'il s'agissait d'une fille, elle était toujours là pour dire ma fille. Nous prions Dieu pour qu'il l'accueille en son paradis céleste. L'association Les Amis de Derkley, au début, n'était qu'un groupe d'amis, de, de 10 personnes sur WhatsApp. À la brutale disparition de l'initiateur Papa Issa Diop, laquelle disparition a intervenu à la mi-juillet, le 20 juillet plus précisément, il y a eu beaucoup d'émotions et beaucoup d'engouement. Et par conséquent, une adhésion massive des populations dans ce groupe WhatsApp. Nous avons très rapidement atteint le nombre de 200 et plus. Nous avons jugé intelligent intéressant de nous muer en association Dans la foulée, une assemblée générale a été le 24 octobre. Un bureau a été en place et ce bureau, sans de temps, s'est automatiquement mis au Et voilà le résultat aujourd'hui. Euh, dans la foulée aussi, il y avait d'autres actions qui ont été, d'autres actions sociales qui de gel et de masques dans ce de Covid-19. Aujourd'hui, Il s'agit d'une journée de dépistage du cancer du col de l'utérus qui désormais sera inscrite dans l'agenda sanitaire de l'association. Euh, cette journée a été pilotée par euh, le docteur Iboussissa avec sa commission ici présent. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir cette mobilisation que vous voyez ici au niveau du centre ce matin. Nos remerciements vont donc à toutes les populations Parce que vous savez, cette journée rentre dans le cadre, l'association dans, dans sa mission de mener des actions sociales pour les populations sans discrimination a donc initié cette journée. Il y aura d'autres journées de dépistage du cancer du sein et notamment d'autres façons de, de, de, de, de de ce genre. Mais je voudrais juste remercier toutes les bonnes volontés. en regorge, la commune de gorge de bonne volonté, la commune de gorge de générosité, la commune de gorge de compétences. Alors, je voudrais saisir cette occasion pour les remercier. Ils n'ont ménagé aucun effort pour que ce, cette journée connaisse vraiment un succès. Il y a des, des, des, des, des personnes ressources qui nous ont beaucoup aidés. Vraiment, ils sauront se reconnaître. Euh, et je pense que le président va, va adresser des notes à leur, à leur niveau. Je voudrais tout simplement vous réitérer toute notre disponibilité, l'association en tout cas, va vous réitérer toute sa disponibilité pour vous aider dans d'autres occasions et dans d'autres circonstances de ce genre. On est là pour travailler pour les populations et Inch'Allah, euh, on verra avec l'avenir. bi ñu wootee ci initiative bi dam si uy si à travers euh, suñu camarade suñu sœur Awa Sissoko te ñu fas yéene aussi sotti suñu participation à travers initiative bu mel noonu euh, bi ñu déggee loolu ñu ne ah loolu jar na am taxawaay ñu sottiti ñoo fi ak suñu gynécologue benn obstétricienne pour apporter suñu participation loolu xaaruñu ñu woote ñu bi ñu déggee appel boobu dañoo uysi te yaakaar ne dañoo war a am taxawaay ci wàllum wérgu yaramu jigéen ñi ndax suñuy yaay lañ suñu sœur lañu ñun euh, bu ñu waxee les amis de Derklé c'est c'est c'est lu mag la te tey jamono bi laaj na ku dëkk foo dëkk nga am taxawaayu citoyen te taxawaayu citoyen boobu moo am solo loo nekk-nekk foo faral faral ci wàllum def engagement bu ne lu am solo mooy sa taxawaay te man en tant que habitant de Derklé en tant que citoyen de Derklé may rafetlu di saluer l'initiative di di di di encourager bépp initiative te ñu fas yéene liggéey ko pour que mu wéy pour mu continuer loolu daal moo neexoon sama sama sama kaddu di féliciter bépp euh, euh, participant ci loolu. di jiital ci nuyoo bi sunu président Amsata Ndiaye moom mi nga xamante ne ay raisons professionnelles moo tax ñëwul. mais démb jox nañu ay directives war ñu naka lañu ñu war a doxalee du ma mën a commencer sama kàddu te du ñu formuler benn ñaan pour sunu maam maa tëw moom moom sunu maam la man sama chéri la woon personnellement. te ni mu ko nekkee man la ko nekkee samay moroom yëpp ñu ñaan yàlla na xippee il yi na ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu nekkee lii nag li nga xam ne moo ko sabab mooy actuellement nii ci données ci données yu ñu disposé y a 36 pour cent de cancer gynécologique. donc pour cent de décès. Actuellement, la prévalence au Sénégal et de on pour loolu moo 12,1%. sax directeur PEV, programme élargi de vaccination, ne woon quoi, def vaccination pour tous les filles de 9 à 12 ou 14 ans. loolu moo tax ñun ñu ne mun ñu bàyyi octobre bii nii bien vrai que sax ma dernier samedi octobre samedi passé loolu ñu ne nii lu ñu mënti def dinañ mën a def activité bi pour dimbali suñu jigéen ñi. parce que lii nii après képp nga xam ne yàlla dogal na ni nga nekk positif nañ def le tout pour def un suivi parce que cancer du cancer du col de l'utérus ñëpp xam nañu si précoce rek wala vaccination moo ci mën dimbali nit. ki ñu ko wax wasalaam maa ngi mënuma terminer te du ma gërëm bàjjenu gox yi à travers seen présidente sama maam bi taxaw ak l' ensemble ñi mu bokk liggéey bi yëpp gërëm aussi les réseau de femmes. Fama Kanji aw Taaw soxo ak ñeneen ñëpp ñu nekk ci gox bi ñeneen ñëpp ñu nekk ci gox bi wax dëgg yàlla wasalaam.